wasalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa saxbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu alwaqad wajcalhu zakiran wa shakiran abad wajcal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi leen di nuyu te di leen ziara di leen ndokkeel di leen bal ak di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ni ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci suñu émission bi nga xam ne moom la ñu tuddee jataayu xam-xam bi ci ci fàttalenteenoo ak yéen leen ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu ci émission boobu la ñuy dikkaat rek ci suñu bind bi weesu ñi ngi woon ak yéen ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiallahu anhu def euh, tudde ko at bi kayfiyatil imaani bil yawmi kafaana allahu taala ahwalahu mooy bunt bi nga xam ne sëriñ bi radiallahu mi ngi ñu fi jàngal naka lañu ñu war a ak euh, yu raglu ak yu tiit ya nga xam ne ñoom ñoo fay am waaye mu ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu musal ci mbooleem euh, yu raglu ak yu tiit ya nga xam ne moo fay am mu mel ni ñi ngi taxawoon ci euh, mbir yi nga xam ne mooy am ca bis booba sëriñ bi tuddoon ca lu mel ni kan nasri wal xasri wal wakal mizan wal xawdi wal jannati wal niiraan waka siraati wal mururi wal safaati nabi wal azab yaakaar naa ci bayit boobu la ñu taxawoon waaye sëriñ bi di continuer rek ci bunt boobu ba tey di wax ne yuxaasabu almaru ala alqitmiiri maa alfatili wa ala alnaqiri sëriñ bi nee na euh, jëmm june dees na ko régler yuxaasabu deef na régler almaru cem si alal xitmiiri ci li ñu tudde xitmiir maal fatili ànd ak fatil wa alal naqiiri ànd ak li ñu tudde an yooyu ay mbir la yoo xam ne bu ñu xaree doomu tàndarma ca la koy fekk alxitmiir ni ñu koy firee wax nañ ne mooy boo xaree doomu tàndarma ci biir tàndarma bi lu weex loolu nga xam ne mooy tege ci kaw noonu lañu koy firee waaw ma alfatili alfatil mooy wëñ gu weex gi nga xam ne mooy tege ci kaw uh, doomu tàndarma bi wa ala naqiri uh, bu dee an naqir mooy uh, li nga xam ne moom mooy jiitu wëñ gu weex googu nga xam ne loolu lépp ci biir doomu tàndarma lay nekk loolu nag bu ñu gisee sëriñ bi radiyallahu di ko misaale régler doomu aadama yi li ñu ciy déggee mooy lépp loo xam ne euh, nit ki def na ko rek bu ëllëgee suñu borom bi subhanahu wa ak jëf jooju lu mu xeebu xeebu ak lu mu sew sew ak lu mu nëbbu nëbbu bu ëllëgee suñu borom bi subhanahu wa taala dana ko régler comme li nga xam ne mooy euh, doomu tàndarma loolu ci biiram ni mu sewe lépp loo jëf ci àdduna te muy lu lu lu nëbbu wala loo xeet ba yaakaar ne lii suñu borom subhanahu wa taala du ko réglé bu ëllëgee dana ko réglé mu ne wa yaqawul xasaasu wa yaqaw dana tàbbi alxisaasu fayantooga bayna jàmma ci diggante am njëkk wa bayna xarnaa ak ci diggante borom yi béjjën lead leen ngir ak maandu sàmma ca foofe sëriñ bi radiyallahu anhu nee na li ñuy tudde alxisaas muy fayantoo nit ki def la dara nga fayu kem la mu def sëriñ bi radiyallahu anhu nee na dana am ca bis boobee ci diggante am njëkk bu ñu ko waxee mooy xar mu amuti béjjën wala mala bu amuti béjjën wa bay na xar naa ak mala bu ami béjjën li adlin ngir maanduk suñu borom bi subhanahu wa taala foofe foofee ca bis penc sëriñ bi radiyallahu anhu nee bis booba euh, ci maanduk suñu borom bi subhanahu wa euh, képp koo xam ne yoreeloon nga ak genn kenn ko yoreeloon ak fi ci àdduna bu ëllëgee suñu borom subhanahu wa taala dana dox seen diggante ba ku yoreeloon nit àq nga fay ko ko ba ci bàyyi ma yi sax bàyyi ma bi nga xam ne suñu borom daf ko defaloon ay béjjën keneen ki mu xañ ko ay béjjën euh, bàyyi ma bi am ay béjjën tooñ mi amut ay béjjën ba mbëkk ko ba andil koy jafe-jafe ba gaañ ko loolu sax suñu borom subhanahu wa taala ëllëg dina ko régler waaye ñooñu bàyyi ma yooyu sax danañ fayonte ëllëg bala leen a suñu borom subhanahu wa taala def ab pënd di leen wal ñuy naaw dem kon loolu liñ ciy dégge mooy euh, képp koo xam ne yore nga ko àq fii ci àdduna danga ko fay ëllëg yowmal xiyaam boo ko ëppee doole ba euh, jëfee ni nga xam ne noonu la la soobee itam bu ëllëgee danga ko euh, fay loolu nga xam ne moom nga jëf sa diggante ak moom Euh, kon moo tax euh, li nga xam ne moo di ay tooñaange ñu war koo wàññandiku bu baax a baax ndax ëllëg li muy jural doomu aadama bi rek mooy daf koy jural ay tuyaabaam di wàññeeku waaye mën na koo jural itam ay bàkkaaram di gën a yokk ndax képp koo xam ne yoree nga ko àq fii bu ëllëgee ci say tuyaaba la ñuy jël titi buri ko jox rek bu demee ba say tuyaaba jeex nag ñuy tibb ci ay bàkkaaram moom mi nga xam ne moom nga yoreel àq di ko jox kon loolu war naa tax doomu adama bi moytandiku bu baax a baax lépp loo xam ne moo aju ci tooñ waaye moytandiku bu baax a baax di yoreel ay àq ay nit kon ñu xam ne bis boobu mooy bis bu nga xam ne lépp loo xam ne nit ki doomu aadama bi def na ko fii ci àdduna ci digganteem ak doomu aadama yi mu di ay àq te bis boobu suñu borom bi subhanahu wa taala di ci bàyyi dara waaye eh, képp ko amee nit àq rek bala nga jéggi foofee di nga ko ko fay ba tax na kon nit ki mën na ëpp doole nit fii ci àdduna tooñ ko def ay pexey ba euh, jël dëgg ga waaye na xam ne loolu fii ci àdduna rek la te bu ëllëgee itam bala jéggi euh, siraat wala muy jéggi fa nga xam ne mooy euh, di dem fenn muy ca àjjana wala ca sawara wa iyaazu billah ku mu yore lan àq dana la ko fay moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ne wa kullu ma ajraahu saxsun min amal fa sa yara jazaahu yowmal wajal nee wa kullu ma lépp loo xam ne ajraahu dawal na ko saxsun am kem min ci jëf fa sa yara xal set naa gis jazaahu payam ga yowmal wajal ca bisum jàqare ba nee na képp koo xam ne euh, maanaam dawal nga jënn jëf maanaam jëf nga jënn jëf fii ci àdduna bu ëllëgee na nga xam ne jëf jooju danga gis fay ga euh, ca bisum njàqare ba di bisub tiitaange ba te moo di bis denc euh, moo tax euh, suñu borom subhanahu wa taala di wax ne man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayiba wala na najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yamaluun képp koo xam ne jëf na jëf bu baax moo xam góor la moo xam jigéen la maanaam dinañ ko defal dund bu teey te bu ëllëgee itam danañ ko fay ngën gi pay ci li nga xam ne moom la doon jëf waaye nag man wa man assa wax wax na feneen ne wa man asaa fa alayha képp koo xam ne itam ñaawal nga euh, euh, sa jëf ji xam ne moom ngay jëf euh, ci àdduna na nga xam ne ñaawal googee day ci sa bopp rek lay dellu waaye ci yow rek lay këpp kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax di jéem a jëf lu rafet waaye di jéem a jëf euh, lu baax waaye di jéem a jëf loo xam ne bu ëllëgee bu ñu ko suñu borom subhanahu wa taala di fay mu nekk loo xam ne duñu ci réccu waaye mu nekk loo xam ne duñu rusa taxaw ci kanam suñu borom subhanahu wa taala euh, di ko fay ndax bis boobe bis la boo xam ne kenn ku ne sa mbir daf lay doy sëkk moo tax suñu borom di wax ne li kullim di in minhum yawma idin sha'nun yughni bis boobu mooy bis ba nga xam ne ku ne sa mbirum bopp daf lay doy sëkk warif mbirum keneen ngir lan ngir njàqare ne ca bis booba ak fayantoo ba nga xam ne moo fa ne waaye ngir tiit ga nga xam ne moom la doomu aadama yi di tiit ngir kenn xamagut fan ngay mujj waaye kenn xamagut fan la suñu borom subhanahu wa di dugal waaye kenn it xamagut ndax dana mucc wala ah, naka la mbiram di demee kon looloo tax nit ki war a fexey bay daw lépp loo xam ne moo aju ci ay ci digganteem ak doomu aadama yi muy fexey di ta moytandiku waaye itam muy fexey di def kem kattanam lépp loo xam ne ah, lu baax la lu ko mën a andil ay tuyaaba waaye lu ko mën a yokkal ëllëg jëfam ju baax moo tax bi ne jaalana allahu yàlla nañu yàlla def minal xawmi ñu bokk ca nit ña nga ca nit ña allazina ña nga xam ne laysu yaqaafuuna déet ñoom ñuy ragal wala hum yaxzanuuna waaye déet ñoom ñuy tiit ca bis boobe kon sëriñ bi radiyallahu anhu ne yal nañu suñu borom subhanahu wa taala def ñuy nit ñoo xam ne bis boobe nga xam ne moo fees dell ak njàqare fees dell ak tiitaange fees dell ak njàqare doomu aadama ak tiitaangeem ci kanam suñu borom subhanahu wa taala waaye ci kanam doomu aadama yi nga xam ne daf leen a yoreel ay àq ñu war a taxaw fayeku ko sëriñ bi radiyallahu anhu ne na bis boobe yal na yàlla ah, fegal ñu ah, ah, ragal waaye yal nañu yàlla fegal li nga xam ne mooy tiitaange kon lépp loo xam ne mooy tax ñu tiit wala ñuy ragal ca bis boobe yal ñu ko yàlla fegal mu ne almawtu faatu wa suaalu ak laajte fil xubuuri ca bàmmeel ya yadxulu dana dugg fil yawmi ca bis ba alal masuri ca lañu wesar euh, nee na bis boobe itam bokk na ci li nga xam ne dana dugg ce bis boobe mooy faatu ak laaj yi nga xam ne moom la ñuy laaj doomu adama bi ginnaaw bu faatoo ba ñu dugal ko ci bàmmeelam ndax euh, euh, foofee foofa la bis penc bi di di di di tàmbalee ci doomu aadama bi ndax bis penc comme ni ko sëriñ bi radiyallahu anhu waxe dane dafa am bu ndaw am bu mag kon foofu nga xam ne fi la nit ki faatoo bañ dugal ko ci biir bàmmeel mu daje fa ak ñaari malaaka yi ñu koy laaj foofa la bis pencam tàmbale ndax loolu moom la ñu tudde euh, bis penc bu ndaw maanaam mooy fi nga xam ne fa la bis penc di tàmbale ci doomu aadama bi kon ginnaaw boo faatoo rek jàppal ne euh, ba malaaka yi ñëw tàmbali di la laaj jàppal ne yaa ngi tàmbale dugg ci bis ndax loolu bis penc bu ndaw lañ koy tudde euh, waaye Euh, fa nga xam ne fa la ñëpp di jàkkaarloo ak suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu defoon mu fay leen ko nag loola moom mooy cëppaandaw ga mooy bis penc bu mag bi nga xam euh, lépp lu nit mas a jëf rek ca lay lay feeñ waaye lépp loo xam ne mas nga koo tooñ doomu aadama foofa ngay daje ak moom ngir ngeen fayantoo ko seen diggante moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne isil xiyaamatu on daal xiyaama xiyaamataani ñaari taxawaay la taxawaay ba de ñaari taxawaay la suxura bu ndaw wa kubra ak bu mag fa famu na xam bayaani samak leeral mu ne nag suxurahuma bu ndaw seen ñoom ñaari xiyaama yooyu almawtu mooy faatu wa amal kubra ndaal bu mag ba nag fa xiya moom miitatul baraya mooy faatu bindeef yëpp turran boole seen nana na ngeen xam ne day eh, xiyaama muy bis penc xiyaam mën nañoo wax ne ñaari bis penc moo am yow saa boo faatoo na nga xam ne sa bis penc bu ndaw tàmbali na léegi nag bu nit ñëpp faatoo ba euh, war a daje kanam suñu borom subhanahu wa taala loola mooy bis penc bu mag bi nga xam ne fa la ñëpp di daje ku ne loo mas a jëf ci lu baax ak loo mas def ci adduna foofa la ko suñu borom bi subhanahu wa taala di fay waaye itam ku loo mas a def sa moroomum doomu aadama foofa itam la fayoon tooba de amee nga xam ne mooy bis boo xam ni jenn jëf ju baax dafa doy waaye mooy bis boo xam ne lu nit ki am ci jëf ju baax lu nit ki jëf ci lu baax fii ci àdduna dana ko xeet ngir eh, la mu fay soxla ci aw yiw eh, nu mu toll rek du doy kon bis boobu bis bu mat a bàyyi xel la waaye bis bu jara waajal la ndax mooy bis ba nga xam ni ca la tooñkat di jël baaraamam mat wi cax di eh, eh, mébéta doon suuf maanaam di mébét ngir doon suuf te boobaa loola weesu na ah, wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laytani kuntu turaba maanaam mooy bis ba nga xam ne ca la nit ki di eh, ca la tooñkat di matt ay tey ma doon suuf ngir lan ngir njàqare la muy gis foofu waaye ngir tiitaangi lam fay gis waaye itam ngir Euh, langa xam ne moo ko mën a fekk ci jëf ji nga xam ne moom la daan jëf ci ay ngi fii ci àdduna ndax ci xadis euh, yonent bi som alayhi wasallam day wax ne az-zulmu zulumaatun yawmal maanaam tooñ ay lëndëm lëndëm ak i bàkkaar lay nekk ci aji def ko euh, ca bis penc ba kon loolu tax ki nga xam ne moom moo doon tooñ fii ci àdduna bu bis boobaa Euh, euh, dana mébéta dana euh, mébéta bu sañoon dana mën a dellu siwaat àdduna ba man fee jëf-jëf ju baax joo xam ne dana ko dana ko mën a jariñ waaye bu boobaa loolu day fekk dañ naa rëccu day fekk jëf yeesu waaye itam booba day fekk lépp suñu borom subhanahu wa taala yembal ko ba nga xam ne fayonte ba rek moom mooy la nga xam ne moo fay des xam gi nga xam ni moom la euh, doomu aadama di xam ne bis booba bis bu nar a metti lay doom loolu ci biir bàmmeel rek la koy tàmbalee xame ndax képp koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nar na sa mbir yéwén ëllëg euh, bu booba ci biir bàmmeel lay tàmbalee waaye su fekkee ni itam euh, mbir dafa nar a jafe ci biir bàmmeel lay tàmbalee ba tax na nit ki xam gi muy xam ne bu duggee ci biir bàmmeel xam gi muy xam ne Euh, lépp lum jëfoon ci lu baax daf koy xeeb ak xam gim xam ne euh, lépp lum jëfoon ci lu baax rek bu ëllëgee loola du ko doy loola dana tax mu xemmi ma dellu si ngir jëf-jëf bu baax joo xam ne dana ko euh, bu delloo ca bàmmeelam wala mu dellu ëllëg yowmal xiyaam dana ko mën jariñ moo tax sëriñ bi di wax ci masaalik ne wa arrabul ashyaai lil amwaati raddun ila dunya ma xayaati wala walaw suwayatan faqat li yaamalu salihatan tanfaahum in xafalu ne na ñi nga xam ne ñoo faatu de li ñu gën a bëgg te gën koo sopp mooy ku leen delloo si waat àdduna doonte ne dañ fi am benn diir bu gàtt boo xam ne dinañ fi jëm dinañ fi jëf jëf bu baax yoo xam ne bu ëllëgee buñ dem delloo ci seen bàmmeel ya ah, dana leen fa mën a kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi desandi ñoo ngi ñaan suñ borom ñu te xiir ñu ci jëf bu baax ah, te eh, Euh, sàmmal ñu suñuy diggante waaye euh, li nga xam ne moo dox ci suñu diggante yi àq lépp euh, suñu borom ak suñu borom suñu borom subhanahu wa taala jéggal ñu ko waaye li ñu dox suñu diggante ñun doomu aadama yi ci ay àq ñu koy jéggulante bu baax a baax ngir bu ëllëgee ñu mën a am ak texe yàlla nañu ko suñu borom bi subhanahu wa taala defal in uridu illa al islaha ma stata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullah